الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا عباد الله الحمد لله رب العالمين رب واحد السماء لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يسون بقي ينبقى لي الله جينا في نسنت يالله في لتيجة يالله محمد صلى الله عليه وسلم يوم اللي دنيا تدين زيارة دين بارو حق كتي bis bi nga xam ni tey ci la ñu nekk muy bisub iid bi nga xam ni lii ko waral mooy li ñu jóge muy shahru ramadan al mubarak lañ ciy jiital mooy ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo ñu santoon pour ñu jooxe ko lañu ca def yal na ko ne yal na ko nangu yal na ko barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa liñ ci rëcc ci ay njuumte moom mi nga xam ni moo bind doomu aadama te te bindee ko ci fàtte te fàtte tax ñu rëccale ko yàlla ñu yàlla jéggal yooyu la ñaaw ñuy ñaan yàlla moom ci boppam moom mi nu may ba nu mën a fekkee ren yal nañu yàlla may ñu fekkee waat weer wi déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te aajo bu waaye am te mu tële yàlla la ko yàlla fajal ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant yàlla mi nga xam ni mooy borom mbindeef li nga xam ni moom la xutba bi wax ndax ci turu xutba bi lan la mooy jihaadu nafsi wa sheytaan mooy nit ki lan lay def bay xeex ak bakkenam di xeex ak seytaane mi nga xam ne mi ngi laxasu ci bakkanu doomu aadama nan ngay def ko mucc ci moom waaye foofu ñaar moo ci am nañ ci bàyyi xel bu baax te déglu ko incha allah yàlla mën nañ cee xetal yàlla dimbalañ ci ñuy sant yàlla mi nga xam ni may borom ak jaam ñi yàlla mi nga xam ne moom digle pour ñuy xeex alal la ñuy xeexal ki ngay xeex da ngay jàkkaarloog mooy ki ngay xeexal ñu ngi ci yow te mooy sa bakkan sa bakkan daa am lu mu soxla ci sa jëmm waaye jëmm bi daa am lu mu soxla ci digganteem ak boroomam lépp nag ñu ngi aj ci bakkan kon yow nan ngay def ba sa bakkan boobu nga mën koo ñëwal nga mën koo ëpp doole ci li nga xam ni moom la moom la jën a jegeel te loolu mooy seytaane yàlla nañ ci yàlla musal yàlla moomu mooy ki nga xam ni moo farataal ci mboolem jaamam yi ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk taxaw ci loo xam ni da nga ci mën a xee ak sa bakkan ba nga mucc ca loola ñun ñëpp nag wàccuñ ci kenn mun ko dalee ci man ak ku a doon sa bakkan bi nga xam ni moom moom nga amee bul ko yemale ci noy yi génn noy yi dugalut noy yi waaye ni am na ay yenn yenn yoo xam ne bakkan moo la ca yóbbu su ko defee nga génn ci topp yàlla na yàlla musal ci loolu mbokk yàlla moom la ñuy gëm te te déggal ni amul benn góor boo xam ni nit ki war na ko ah, سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا لا إله